assainissement dañ ko war a defar cest di dire tàmbali na xam nga assainissement li may faral di wax mooy maanaam ay système la yuy jokkaloo la fenn fu mu ci am rupture fu nekk rek day am conséquence mu ngi mel ni tey ndox maanaam dañuy wax ñun ci tubaab dañuy jàng lii dañuy wax bassin versant mooy maanaam dafa am zone boo xam ne bii taw yëpp bu tawee fii la jëm donc yoon déjà yéen fii yéen a ma wax léegi nii fii yéen a ko tuddee cëmb timbo mm. timboo mooy ab déeg bu mag fu nit ñi daan tëmb di sangu mm. voilà léegi nag bu fi nekkee tey nit ñi toxu nañ fi mais ndox mi ko fi daan indi fa mu daan jaar bu léegi mu nga fa donc soit boo bañee mu jaar fi da nga koy kar yóbbu ko feneen waaye boo ko seetaanee rek bu ndox mi baree fu ci ndox ma la jëm ndox du bàyyi yoonam loolu olof Njaay wax ñeneen ñi aussi dañ fiy ñëw occasionnellement bu màggal jotee ñoo ñëpp kenn ku ne war na cee jàpp pour que ñu mën a génn ci situation bi am na ci peut-être ñu mel ni man ñoo aussi am nañu ay kër ñi ngi fi yaakaar naa ne sëñ bi defee appel mais baax na aussi ñoom it ñu gën a relancer cet appel là parce que Touba kenn ku ne xam ne bari na ay murit yi fi am ay kër boo xam ne bii peut-être maximum semaine lañ fiy dund